politique société culture sport qui gâte les lu laaj waxtaan l'air ak yonal ci yon wi lañu koy waxtaanee yoon wi ak El qui Assane Gueye ci Futur Media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 sama kóllëre ak yow. ak sa sollicitude ak sa attention. lolo tax tay xawon na xat waxtan <laughs> waxtaan nañ ci. <laughs> Mm-hmm. Euh, waye peut-être tamine kula la nangul nga ne mm-hmm. ko déet du yomb. te gis na ne si métier bi luma la ci soxla rek dag ma mm-hmm. si dëglu. motax tax ma ne rek ñew tay inshallah allah. jërëjëf dafay baax it également ni wolof di wax kula la njëkk mo lay won forcément nu ñuy reere que aussi euh, ci métier bu mu mën a doon ña ci jitu di wax ak euh, nouvelle génération yi parce que les léeg gune ils ont tendance xalaat ni yëf yi daa xëy rek wasin waaw même ci politique da ngay gis ku xëy samp ndëmbam tey rek foog ni moom moo toj dëkk bi aloo que am na ñu ko tojoon laata moom il faut que ñuy ñuy indiwaat taarix waaw moo tax ñuy mel ni yéen di wax da ciy baax jatu waaw jërëjëf <laughs> Assane man euh, yaakaar naa ne rek ku nekk euh, loo yàgg rek quand même mhm. am ci loo xam am ci loo dund mhm. loo xam ne mën na jariñ Euh, ñi nga bokkal géew boobu mm-hmm. moo xam journaliste nga moo xam homme de tenue nga moo xam ouvrier tey jii boo fekkoon benn paa bu yàgg ëw ci uudee ci mbaaram mm-hmm. boo ko dëkkloo rek yow bu sobe yàlla li na la jàngal ci métier bi loo musul xam wala loo mun musul gis loolu moo tax je pense que nit li ko li gën a mën a fatt xelam mm-hmm. mooy mu foog ne moom xam na lépp mën na lépp ci li muy liggéey yegg na fa mu war a yegg loolu je pense que erreur la xel xel du doy ah laata ñu gën a yaatal waxtaan wi ñu jàlle Sénégal rek Gaston Mbengue euh, déggandoon nañ ñun ñëpp xibaar bu tiis bi démb ak léegi moom promoteur bu mag bi. waaw euh, dëgg la man temps yële dama toog nekk sama xel dem si moom. Mm-hmm. bien que euh, miinante wuñu ni ko sénégalais yëpp xame laa ko xame mhm. euh, may wax ak sama benn euh, doomu ndey ndey roqe ya mu ne ma wax nga dëgg jatu gaston dafa dafa yaram bi dafa neexul temps yi mhm. ñu di ko jaale mhm. di ko jaale surtout suñu grande sœur Aminata Meng parce que moom suñu mag la suñu xarit la di ko jaale di ñaan aussi yàlla defal ko yërmande parce que gaston nga bëgg ko wala nga bañ ko tamit je pense que nit la koo xam ne euh, li mu gëmoon Euh, daan na ko wax li mu gëmee woon tamit daan na ko jëfe euh, mën nañ ko nangul nii nit ku dëggu la woon même bu mhm. fekkee mën ngaa bañ a d'accord ak moom euh, li mu gëm moom ñi mee woon na ko yàlla na ko yàlla defal yërmande très très entier mhm. ah, amoon qualité bu raar léegi ci réew mi ah waaw parce que nit ñi mën nañ fekk contraire ba moo ne seen xol waaw waaw moom moom la woon <laughs> moom li ma la wax rek nga d'accord ak moom nga bañ a d'accord ak moom mhm. ku ne xam nga ne Gaston ku ñi mee ay piétem la ku ñi mee ay point de vue la ki mën a assumer tamit limu mu yaakaaroon ne moy deugam mhm. même boudé lélé wax bi mhm. euh, tournure bi ak formulation bi mun na la metti wala mhm. mun na la choquer, mais loko ko wax a rek munoo quand même sa aqulaay taala baña wax né ku deug won la ci li mu nekk dëgg la jërëjëf euh, Diatou Cissé euh, magal nañu première mai démb feet bi jaglél walum xey lan ngay wax yaakaar ba tey wala dañ nane c'est toujours la routine yobou nañ kay de et puis voilà ba benen. ah di di d'abord di sargal liggéeykat yëpp parce que man euh, nekkoon naa fi syndicaliste. dama doon wax ne sax damaa nekk syndicaliste yi ci fakkastalu mhm. parce que damaa dugg ci métier bi rek. Euh, gis ne euh, moom sa bopp ci liggéey bi dafa am solo. Mhm. man looloo taxoon ma dem fekk ji sama ay mag à l'époque ay ñoom Ablaye Ndiaga Sylla ñoom Asma Demba Ndiaye. Mhm. ñoom Maam Lees Camara yàlla na leen yàlla yërëm. ma nekk ci ñoom nekk xale bu ndaw engagé rek topp leen ci loolu. ba finalement mujj naa diriger Synpics. léegi nak waaw cahier de doléance mom baxna mhm. rituel la. manam mhm. taarix la bo xamné ne day jëmmal quand même bés bi nga xamné dañ ko jagleel ligéyu kat kat yi mhm. nañu cahier de doléance yi. ah li daan am moy né dañ daan yobbu cahier de doléance man mi musna yobbu yóbbu ay doléance su euh bobata taa wad euh Gersu né premier ministre am. il faut travailler avec Diatou sur ce dossier. ba démb ba tey France daal di xiddeem kenn mhm. musu cee liggéey ak man léegi na ma yaakaar ne comme dañu ne rupture la ñu jëm kay mhm. de doléance bi du nekkaat rek cahier de doléance de plus dinañ ko xóotalaat càmbar ko euh, mën a ubbi nag euh, dialogue je pense que état du Sénégal euh, li koy sonal mhm. mooy ne finalement day dialoguer du négocier parce que négocier mooy nga teg li nga mën keneen ki wax limuy xaar wax mais a raté composition euh, par exemple accord mm-hmm. bu aussi daf lay dab mm-hmm. ma peut-être ci comme dañ ne dañuy def rupture euh, dinañ changer bi mm-hmm. changer aussi day nekk ci côté syndicat yi day nekk ci patronat mais day aussi ci côté ñu euh, côté bu laaj lan him in the neck ba askan bi yeb du loro mhm. parce que tamine deuk bi du liggéey ñiy xëy suba rek ne bureau. ki nekk ci mbaru tëggam. ci la bok maire bi jaay gerte caafam. ci buntu RFM bi ci alalu deuk bi la bok ci mhm. alalu askan bi la bok je pense que donc il faut ñuy trouver tamine équilibre. ku nekk rek baña jël def ci kanamam ba mu dëll. Mhm. très bien maintenant euh, ci walu gouvernement bu soog a pour yow en tant que syndicaliste loy wax telna na wala gaay dañ nan comme c'est la continuité rek ñu daal di wéyal di parce que man li sama xel mu même ils n'ont pas encore pris connaissance de ces dossiers là donc est-ce qu'il fallait pas man je pense que telna na mm-hmm. euh, telna ci bu mm-hmm. pour man jël engagement telna parce que li di situation de référence dafa bax mm-hmm. mbir mi wax wala fan la tollu Euh, ban natt ci am. Mm. ban gis-gis laa ci am. loolu dafay baax mm. balaa ngay jël euh, engagement. Euh, j'espère que ñoom. mooy li ma la doon wax sànq dinañ delluwaat yooyu yëpp ci doléance yi revendication yi Euh, dinañ ko càmbar dinañ am tamit un aperçu historique. Mhm. liñ doon laaj depuis kañ lañ ko doon laaj lu tax loolu mënul sotti. Mhm. pour man loolu yëpp ci situation de référence yi la bokk. xam nga amagoo weer. Mhm. Euh, jël engagement dafay xaw a diis. donc je pense que xel la sécurité la aussi. ci ñoom. Euh, yenn yi ñu même bu dee dañuy wane seen bon fois ñu tey ci ba mu gën a leer leer bu baax seen bopp te yaakaar naa ne loolu mm. euh, réere wuñu ko mbir quand même dëgg la pour bañ a jur yeneen jàmbat genre way les accords signés waaw non respectés defuñu ko yaa ñu ko waxoon mm. defuloo ko wax nga wax waxeet waaw loolu moom daf ñuy tardel ñun ñëpp ñu des ak syndicaliste bi Diatou Cissé euh, ci wàllu syndicalisme aussi est-ce que foogoon ni ñun ñun liggéeykat yi li ñuy xaar ci ñuy jiitu ci wàllu syndicat vraiment dafa mel ni pratiquement dañ leen def ay malaka alors que de notre côté bu amul le même engagement la même mobilisation mais ki la jiite ci syndicat bi du man lu bari. wa xam nga lolu dama ko vivre ci bu baax par exemple buma ma syndicat syndicat SYNPICS intersyndical mhm. euh, CNTS par exemple boko ko won ci kër gu RTS. suma ma doon wax ak sama rak yi ñom Moustapha Cissé dama leen di wax man dama mere wa RTS parce que syndicat. Mhm. ñi jiite syndicat. Mm-hmm. seen doole mooy ñi ñu jiite mais bu fekkee ñi jiite syndicat bi mm-hmm. bu ñu wootee assemblée générale du ngeen ñimee ñëw bu ñu nee signé leen du ngeen ñimee signé bu ñu nee génn leen du ngeen ñimee génn ku noog toog sénégalais yi dañu war a bàyyi mm-hmm. ci li sama xalaat boo leen di xeexal ñu naan la maa ngi ci sa ginnaaw. Mhm. nit kuy xeex soxlawul ku nekk ci ginnaawam. Ah parce que peut-être balaa nga koy capter dafa fekk daanu la. Mhm. nit kuy xeex dafa bëgg ku nekk ci wetam. donc mhm. je pense que tamit de travailleur yi. bëgg tamit tok ce bureau muy dox wala tok ce usine muy dox loolu tamit appliquer nañ ko ci syndicat yi mhm. je pense que très souvent attitude militant yi dañ leen di fragiliser bu baax a baax mhm. parce que nak euh, doole moy jël euh, euh, ki ndox ta ndox mi ak doole bi mhm. ay la yewen lo deuguer deuguer lo am xadar-xadar bo amé ay militant yo xamné taxawuñu euh dañ la naan rek euh, yéen liggéeyu leen dara en plus dañ len di teg les pressions syndicat bi ci kër gi jariñu dara man mm. xamna ko bima nekké nekkee Synpics mm-hmm. day am ño xamné musu ño ñëw activité musu mm. ño cotiser pour ñu ñew sax siège Synpics dañ doon mujj di len tektal fan lañu ñu nekk biir ville ah. ñoñu buñu amé problème dañ lay feug mm-hmm. ma yaakar né tamit lolu nekk lo xamné day may doole syndicat deug la du yomb fii ñu toll est-ce que waru ñu repenser walu syndicalisme également parce que c'est vrai que di di di laaj say sañ-sañ ak baax lool bala nga ni naam ne fa nak wa ñuy tamit faw mu dund la survie de l'entreprise waaw la survie de l'entreprise da fay am mais la survie de l'entreprise parce que manam li tubab di wax euh, branche ba nga tok hmm boko goree yow da ngay daanu lolou je pense que meuno def syndicalisme meuno nek travailleur tamit te meuno xamoko mhm. mais Assane xam nga lan moy problème aussi. Ah c'est ah. entreprise mhm. très souvent c'est entreprise de privé oui ña fa di liguey dañoo xamul gisuñu. Mm-hmm. munoo xëy suba rek ne ma dara doxul. wanoo ma état financier. Mm-hmm. wanoo ma bilan. waxoo ma lan moo dugg ci publicité. waxoo ma lan la ñu fay courant ci at bi. waxoo ma lan la ñu ndox ci at bi. Mm-hmm. wanoo ma sax grille yu salaire. ma xam ku nekk lu muy am. nga xëy suba ne ma problème am na. su ma neexee duma du du du ma la dëglu. ñun bi ñuy def. Euh, Euh, ay discussion le code de la presse ba ñu ñëwee ci fonds d'appui à l'entreprise de presse man mi jatu que c'est au nom de saint pix Amna, ay patronat yu ñuy discuter. Mhm. dañ leen ne xam nga nu di def da di au moins 10% du capital ngeen jox ko personnel bu ko defee ñoom dinañ gis seen bop ci entreprise bi. Mhm. dinañ identifier wu seen bop ci entreprise bi parce que dañuy xam na tamit au-delà du salaire. Mhm. seen bopp la ñuy liggéeyal. mais yeggalaguñu sax patron yi fa nekkoon fayal suñu gémmiñ. Mhm. nañu loolu di ñu duñu ko def donc je pense que euh, dafa dafa soxla. du entreprise de presse yëpp hein. entreprise yëpp en général. dafa soxla quand même mu am. devoir de transparence, devoir de redevabilité, nous mm mais gars yi ben dañu mëna neubutu bi ci top xeyna dañ nan secret kër gi tamit duñu duñ ko yeggé waaw xam nga secret kër gi man d'accord na du ñëpp ñoko mëna mën mhm. man nak sama wax mënuma ko wiri oui par exemple yow Assane Gueye Babacar Fall Souleymane Nya, Kenen. Mhm. situation par exemple financière. Mhm. par exemple de l'entreprise ou du groupe Futur media walu nek lu ñu leen di liyaar parce que da ngeen di bokk si définir politique ak stratégie bi tax kër gi mën taxaw yeen ñëpp da xam nga buñ né par exemple courant bi ñun dañuy fay 3 millions courant par mois. Mhm. mais loolu c'est une information. soo ko waxee Ablaye balaa muy dem fay lampi. yi. Mhm. soo ko ñëwee wax ko conférence de rédaction ah courant bi diis na yeen nak, de len xol ndax fay ngeen climatiseur studio bi bala ngeen di ñibbi. Mhm. set len ndax fay ngeen climatiseur bureau bi bala ngeen di ñibbi waccale ko ba ci gardien c'est déjà mhm. du management. c'est déjà de la gestion des ressources. Mhm. donc je pense que entreprise en général. dañu wara gagner ñu def confiance un peu plus le personnel. ñuy waxtaan ak ñom mais nit vitamine bu fekke day fa xëy suba mom mu japp ne mi ngi neex. en tout cas si ñing ko won yep mi ngi neex. nga xëy benn suba ne ko neexatul mais bu ko neexee mu ne la fan lañ ko tek man li ma yoral dang danga jox man gëm travailleur mm-hmm. travailleurs yi en général am nañu mat go xam bu fekkee da nga leen di informer quotidiennement mm-hmm. wala chaque mois wala à des périodes régulières sur la vie et la situation économique globale de l'entreprise mm-hmm. mais nit ñi dofuñu ku nekk sa liggéey moy sa ah, sutura bo leen ne prime bi tay dama ko don fay waye munu ma ko fay may leen ma temps parce que kër gi li mo fi nek dinañ la ko nangul mais bo ñëwé yoré sa big toog di le patron je suis désolé ça ne marche pas mhm. Ni ñi la très bien il faut forcément établir une confiance il faut ma confiance entre liggéeykat yeeg direction bi gis nga transparence bi mhm. du du dans les services étatiques mhm. man je pense que transparence oui. si këru liggéeykat yi dans le privé même si organisation yi ci association organisations organisation que ce soit les organisations syndicales les organisations de la société civile les ONG même les tours de famille mm-hmm. dafa am obligation de transparence et mm-hmm. je pense que Euh, loolu dafa xaw a nekk quand même euh, sunu problème. Mhm. ñun particulièrement sénégalais di leeral. maanaam lu jëm ci xaalis mais daal. li ma parce que dañoo am problème mu jubal tamit nag. waa de mooy euh, problème mu. dégg naa ñi fi ne dañoo bëgg jubal jubanti <laughs> xam naan du yomb parce que sénégalais bi ci boppam moo am problème mu jubal ñu waxante ko rek vraiment avec tout le respect. Assane waaw man léeg lée damay toog xool ma ne joomaay. Hmm. est-ce que tu peux que ça doit doyul programme <laughs> billaay Hassan? Mhm. parce que l'homme sénégalais madame mhm. sénégalais ci n'as pas le sàkkee ak ci n'as pas ko war je pense que effectivement mhm. asan dañu am problème de transparence man li que gën a métti vraiment ñu jéggal ma ci société pour mu taxaw day mun a relation de transparence asan ouvrier bi nga gëna wolu par exemple. Hmm. jox ko sa ñetti 50 ne ko tabaxal ma sama kër. 90% des cas. Hmm. da lay njuuj nga di ko nga di wër ko gis. Hmm. ki la tam di jaay yap toujours sax. bis bo demulé yónnee sa dom bo ñëwé kër peut-être peese bi dina manquer wala yap bi du baax. et ça va dans tous les échelons. je pense que il faut ñu pour ñu nekk à l'aise ñun ñëpp. il faut quand même ñu am un peu cette culture de la transparence et cette culture de la confiance doomu adama ci bopam man li kalat xalaat doomu aadama dafa soxla am confiance Assane man musna yobbu par exemple ci sama sama auto ci mécanicien mhm. buma xam mu am problème ou boîte à vitesse à l'époque mhm. mu defaral ma ma ñëw ba ci wetu foire bi à l'époque mhm. Dougal vitesse dara amul ben xale bu goor bu don daw

Euh, problème de transparence si la mm-hmm. bokk mm-hmm, transparence c'est pas seulement dans les services administratifs dans l'État mm-hmm. mais transparence c'est dans nos relations au quotidien même ce xew da koy am ça si ñooy saboté sa xew. dëgg la ñooy tibb yóbbu. ñu ñooy nëbb di yóbbu te say gan lekkaguñu. je pense que c'est très très profond. <laughs> tous ces aspects là on en rit. mais je pense que c'est des aspects qu'on doit travailler. quand même dëgg la moo même ci walu système social ben bi lélé buñ né ñu tugal ak yenen rew ñom dañuy néga jël seen i koppar cotiser pour jàppale ay pauvres ay handicapé nangam mais da leen a ni xaalis bi dina dem fañ leen wax mhm. fi tay bo fi woté won ak cotisation mais ñu bari buñ ko waxe buñ ko waxul dañ la wolu parce que it dañ leena a njublag njublaganti leen lolu day am man Euh, alhamdulilah li ma yor barewul mais ñi ma xam-xam nañ ne j'ai j'ai la mais sur le cœur uh-huh. il arrive même léeg-léeg ci réseaux sociaux yi nga gis dara mm-hmm. euh, joxe mais léegi même loolu da nga gis ne bëgg lu yomb def ci bokk parce que man mm-hmm. su ma gisee góor gu ne léng wala jigéen ju xam ne war naa mën a jaay beñe mm-hmm. war naa mën a jaay fataaya wala mën naa wuti linge di jéem a coordonné ket bu ñuy defal yaayam wala papaam dëgg la. Assane loolu mm. ci nag lu yomb la <laughs> tamit quelque part bokkul ci suñuy valeur ak suñu et tu sais très bien que ceux qui organisent la quête voilà la levée de fonds mm. ñoom ñooy administrer xaalis boobu. Mm. man léegi dama commencé ubbi sama bët su ma la gisee nga toll ni ñëpp ba mel ni nga war a mel. Mm. ñu kenn gis sa yaay yërëm ko wala sa papa. ne mm. paa bi dañ ko wala dimbali wala mère bi. yow ah. doom bi nga génn fële commencé intervenir. Ah. man li ma amoon mu tuuti mu néew dama koy denc ci seet feneen fu ma ko dugal. foo xam ne yaakaar naa ne war naa ko fa dugal. Mm-hmm. donc mooy li nga doon wax. esprit de facilité bi li ñuy wax. toog muy dox. Mm-hmm. lijjanti muy dox tëdd muy dox loolu la ñu na dama mm, par exemple euh, loolu daf ma pour la première fois may gis ñuy fomp vitre oto yi. Mhm. Côte d'Ivoire la ko dans les années 93. et j'ai demandé aux jeunes qui qui donne qui bi ma. ma ne ko lu ngay def li mu ma madame man li damay def li juste pour jënd sama agne à mhm. ñun xalaatuñu loolu. donc je pense que euh, amna yo xamné mhm. ci jubante bi la wara bok bokk. te ça demande une dynamique sociale. Mhm. une dynamique communautaire générale. pour ñu jéem a xool naka la ñuy jubbantee li ñu mën aussi ku nekk à son niveau. il faut ñëpp jàpp ji euh, ñu waxtaanee entreprise de presse euh, ak seen i jafe parce que février bi nous ñu bari la dal fan yii ah. xëy na am na yeneen entreprise sax. ci yeneen domaine yu am les mêmes problèmes mais presse bi ça ne va pas. Mhm. gisuloo jatu que jot na ministère de la communication damay wax ni rek par exemple. ak chef d'entreprise yi ay gisee réfléchir ci yan mooy doon bunt yi mën a sawee kër yi. nga Assane loolu dama ko yàgg a wax dafa mel nii état bi dëpp ay at nag. Mhm. dañoo dummooyu këru entreprise de presse yi comme si ñoomu neen la nañ ko lijjantil seen bopp. loolu nag gis-gis boobu pour man rafetlu ma ko parce que entreprise de presse yi ay entreprise lañu. Mhm. groupe Futurs Médias. ñaata jeunes ñoo fi mhm. euh, quand même di sutur la. di fay lu peut-être même di di dimbal parents parce que lolu suñu culture mhm. donc par exemple boy wax sauvegarder des emplois normalement il ci wara a guenné mhm. entreprise de presse ça c'est un. donc je pense que dafa wara effectivement. Mhm. une politique sectorielle. en faveur des médias en général. Mhm. mu intégrer l'entreprise de presse intégrer journalistes les techniciens les ci administration bi parce que c'est quand même des entreprises. Le ben la. deuxièmement xam nga dëkk bi lan moy problème loi doxal ko man code de la presse bu bes bi. amna lu bari luma ci même si tu digue après soppar ñi nañu yenn point ba ñun d'accord tuñ ci ñun fonds d'appui à l'entreprise de presse. Mhm. man dama ci organiser atelier à l'époque au nom du saint Simpix à Mbodiène fele Laguna. fonds d'appui à l'entreprise de presse xam nga lan moko taxone jokk mhm. groupe de presse bu bëgg bon togaayam mu mëna a def projet fonds d'appui à l'entreprise de presse que fonds de garantie auprès de la banque mu mun a jël prêt fonds d'appui Bob. dañu Nous avons un am mécanisme objectif bu am secrétaire général wala mm. permanent mm. am conseil d'administration Nous avons étudier les requêtes bu requêtu groupe Futur Média ñëwee ñu xool bu requêtu E-Média de ñu xol bu requêtu Le Quotidien ñu bu ñewé ñu xol ñu def ci ay critères critères yi moy investissement bi est-ce que fay contribuer à la viabilité ou au renforcement de l'entreprise hmm. est-ce que entreprise bi mi ngi fay ay cotisation sociale lolu man porté woon pour pour bu bu dama bëgg dëgg hmm. est-ce que mi ngi ñi muy ligéyal mi ngi leen di cotiser hmm. est-ce que am nañu prise en charge médicale est-ce que li un code de travail tek yeb mi ngi koy def bo rek les critères yooyu ci ngay éligible pour ñu mën la garantir nga dem lepp lan mo xew xawma nan lañu génn ba mhm. nationale ko fonds d'appui à l'entreprise de presse uufal ko ministère de la communication c'est un conflit d'intérêt mhm. ministère mënul jël cagnotte boobu teg ko di tibbal donc je pense que première chose à faire c'est de sortir le fonds d'aide à l'entreprise de presse mon mhm. n'avons un fonds autonome contrôlé par des gens qui connaissent le secteur des médias dont l'intégrité et l'impartialité ne font l'objet d'aucun doute ni indi projet je pense que fonds un bu ça mhm. sax jeune journaliste et jeune reporter man dama Mm-hmm. sama xol yëpp dafa metti li xale yi wax yëpp mm-hmm. metti na quand même dëgg di liggéey loo nit mm-hmm. doo ko jox paas mu war a wàcc par exemple vingt trois heures war a dugg Njaga Njaay wàcc Castor wàccaat dugg bëgg a yegg di yëmbal bëgg a yegg Petit Mbaaw quand même maintenant, na mhm. te man gis na ne xalé yi nee na ñi am contrat mhm. matul sax 21 et un c'est euh, autour de 21%. pour peut-être fond d'entreprise bobu buñ ko défon asal. Mhm. ñun ñi nga xamné ci métier bi lañu bok. peut-être man yow kenen mun nañu groupe def suñu projet ñu lébal ñi ñu dé parce que ah dafa jot aussi ñi nekk ci secteur bi xam secteur bi ñu mëna amal sen bop aussi même si on remercie sincèrement man xam nga lu ma gëmul du ma ko wax man j'ai énormément de respect pour quelqu'un comme Youssou Nour. mmh. parce que nous na quand même strictement dans le monde des arts et de la culture mais Defna Lenen lo xamna taxna tay Assad hmm. yow nga ñimee yor sa kër Ablaye ñimee yor kërëm Jo Maron Daouda Diouf ku nek mëna yor kërëm nit hmm. tamine bu défé dara ay avancé dang ko koy nangul mais je pense que jotna tamine tamit hmm. ñi nga xam ci métier bi lañu bok tamine ñu mëna am ay possibilités légui fi may rek ci entreprise uh-huh. il faut aussi qu'on soit réaliste mënoo dem luye ben appartement am sa ñetti jarbaat <laughs> sarak ku jabar mm-hmm. ak ñaari stagiaire ne damay def entreprise de presse ah condition de création du entreprise de presse aussi mm-hmm. dañ ko war a seet bu loolu wéy loi yaa ngi fi loi yaa ngi fi même bu dul loolu man mus naa woo benn patron de presse fii sama càmmiñ la mm-hmm. man ko diw est-ce que pourquoi yéen du ngeen dajale seen ay moyens ngen am par exemple consortium de correspondants dans les régions. Mhm. plutôt ngen baye Tassaro, ku nek di daanu ju mhm. parce que je pense que tamit il faut que les gens sortent ku mhm. de ton petit domaine d'influence Ce gis nga bo démé Kenya. lolu daf ma frappé et c'était en 96 que j'ai vu ça à Nairobi mais il da ngay gis immeuble sept étages groupe mm. de presse moko mom mm-hmm. parce que dañuy en fait mm. ils font un consortium mm-hmm. par exemple euh, euh, euh, groupe Futur Média groupe E-Média Sud Quotidien ñom genre yoyu lañuy def je mm-hmm. pense que il est temps aussi nous bàyyi ku trouver peut-être les modalités mhm. pour que on ait moi je préfère qu'on ait deux grands groupes de presse qui contribuent sensiblement à améliorer le débat public et le niveau de démocratie au Sénégal mhm. que d'avoir de petits groupes viables mhm. journal 100 francs dans un pays où il y a 70% d'analphabètes d'analphabètes journal qui mënoo ci yore sa bopp donc am na yil am na leneen te li <laughs> nekk ci ginnaaw très souvent uh-huh. mooy fragiliser aussi métier bi malheureusement waaw yooyu tamit il faut ñu nangu xoolaat ko mais assise de la presse mm-hmm. ñëw na ci loolu yëpp ñoo ngi ñaan ministre ba bees bi parce que mu neex ko mu bañ ko neex si njabootam la ñu bokk mm-hmm. mu may ñu aussi nopp ñu waxtaan mm-hmm. ñu xool secteur bi tamit qui est un secteur vital pour la démocratie naka lañ ci mën a jàppee ba mu gën a taxaw am na solo te ni ko waxee état vraiment euh, def yëfu état dindi affaire paternalisme ak. ak ay waxi aide ak yooyu. ak ah, waxee waxu aide. à la presse. Mm. maanaam le fonds d'appui. Mm-hmm. l'aide à la presse devait disparaître avec hmm. le fonds d'appui à l'entreprise de ah, presse. L'aide ah. Aide à la presse, ça permet l'arbitraire, hmm. ça permet les copinages, hmm. ça permet les règlements de compte. Groupe B nous contre, groupe B nous la Il faut nous dem dans des procédures plus euh, plus claires, euh, plus encadrées sur le plan légal pour que voilà nous xam ku nek lan nga yellol ak nan Très bien. Mané sur le euh, de def des euh, ndax xam naa say rapport si mhm. Lamine Niass ndem si mhm. euh, malheureusement démb am na fa lakk gu métti yàq fa lu bari vraiment ñu leen di masawu waaw masawu bu baax man euh, Sidi Lamine ah, sama yow xam nga sama <laughs> digganteeg moom sama sama la woon mhm. euh, bi may mujjee giseeg moom fekk Salma ñëw fa vacances doomam da ko woo indi ko si bureau na ko Salma fekk maa ngi ànd ak Nafi Ngom Keita sama beneen mag bu baax bu may nuyu ne ko ñi sa ay bàjjan yu baax lañu yu ma naw dama bëgg nga jël ngay jokkanteeg ñoom nga nga nga xam leen donc te yàlla seede na ne ah, a yu sama xel demee si moom yàlla seede na ne aussi dama koy defaral ay ñaan yàlla mm-hmm. yërëm ko euh, ñoo ngi massawu waa groupe Walfadjri bu baax di massawu Cheikh mm-hmm. euh, sunu confrère mais sunu doom aussi mm-hmm. ah, di yaakaar ne tamit euh, këru liggéeykaay la bari na ñu xëy ek dina am un euh, système quand même pour leur venir en aide d'appui à l'entreprise de presse mhm. euh, am euh, ligne par exemple pour des situations d'urgence là. même vous que bon ba sa xel rembourser même sans intérêt mhm. war survie très bien ministre la communication di le refaire. na également ak concrétiser quoi

confusion bi maanaam jaawale bi. Mhm. dafa bari entre ñun journalistes yi. Mhm. nekk ci des rédactions dûment constituées. Mhm. ñu xam ñu muy rajo muy tele wala muy presse écrite ak phénomène bi ñuy wax léegi xaw ma. ay ay réseaux sociaux ay télé ci poche. man gis naa léeg-léeg kenn def gaaf ci ñiy wax. télé ci poche nga dégg ki muy waxal naan journaliste. donc loolu daf ñu dab torop léegi nag bu ñu ñëwee torop ci suñu métier. Uh-huh. ay la yéwén Assane. métier bi jaxasoo na. dëgg gëm naa nag parce que loo nangul sa bopp rek. Mhm. day am ñoo ko nangul. sama akulaay taala man gëm naa ne métier bi ba léegi. Mhm. am na ci ñoo xam ne seen kattan seen kéntalaay kattan. Mhm. ñi ngi jéem a jafandu continuer di ko def ci éthique ak déontologie. ak liberté bu mat sëkk. dëgg nangul naa ñooñu maa ngi leen di gërëm di leen sargal mais nag. buñu mhm. bi premier jaxase bi métier bi ñun dañ ko si ñun. Mhm. <laughs> on s'est retrouvé li Lamine di wax ay ñu <laughs> dugg man par quelle alchimie. Ah la ñi ñi jàng xam. yàgg ci mbir mhm. mais on s'est retrouvé avec des gens à xam plateau yi def. dañ koo configurer ci li ñu mën mm. li ñu mën mooy waxu kasaw kasaw mm, ku ñëw takk sa nomba tànk taxaw fële ne man chroniqueur la mm-hmm. mais ñun bu ñuy nekk si métier bi chronique maanaam dafa nekk genre bu difficile ci li gën a jafe suñu métier mm-hmm. chronique ak éditorial ci la bokk léegi ku mu neex boo jaayee ba ngoon nga tëj sa cantine ñëw nekk chroniqueur man waxuma bu ñu wax la liberté d'expression man ah. loolu gëm naa ci mais métier bi daal li ma gis mooy ne nangu nañ ko ci ñun mm-hmm. gëm naa ne tamit politiciens yi dugal nañu bu baax a baax a baax a baax seen loxo ci métier bi parce que nag li am mm-hmm. mooy ñi ànd ak opposition bi mm-hmm. ba mu leer nañ nga xam ne ñii dañoo jeng ñi àndoon ak nguur gi ba mu leer ñi nga xam ne ñii dañoo jengoon mhm. ak ñi nga xam ne ñi ngi jéem a nekk équilibré nekk ci position médiane bi ñu mujj sax di leen saaga parce que nekkoon nañu situation boo xam ne da nekk opposition wala nga nekk pouvoir boo ko nekkul naa naafiq nga wala fumiste nga mhm. donc yooyu yëpp dugg nañ ci gis ngeen les avis di CORED mhm. donc je suis très fière parce que man CORED damaa yaakaar ne man maa yaayam euh, li ko mettre en place am na lu ma ci liggéey lu kin dul weddi mais gis ngeen les avis du CORED naka la nit mën a ñëw defee communiqué <coughs> joxe ko benn journal. Mhm. téeméeri journal génne même communiqué génne ko titre. Ah donc lépp xam nañ ko. askan bi tamit lépp xam nañ ko mais assise des médias wax na ci loolu yëpp. Mhm. ala kulli àll il faut ñu nangu ne ñun taskatu xibaar yi xëy na euh, du métier bu ñuy may xaalis. Mhm. mais métier bu ñuy may daraja. ak askan bi wekk ñu mhm. loolu mooy métier journaliste donc il faut ñu euh mbubb bi ñu wara sol mhm. ñu jëlat liggéey bi ñu tek ko si yoon ñu jokk akam pour ñu mhm. quand même améliorer la qualité du débat public débat bi fu mu toll vraiment Assane am na loo lu bare bare bare bare journaliste yi ñoo ko orienté ñu ngi jëm ci contexte tabaski je pense que la presse ñun parce que ci la bok ñun on contribue même à mettre la pression sociale sur les gens. à la hmm. limite. Hmm. quelque part on met la pression sur le citoyen lambda amul. Hmm. il faut ñu premier tabaski. dama dem Mali 83 tabaski. c'est bien la famille. le mari. Moussa Tangara est un ingénieur des travaux publics. Mhm. Sa femme était chef du personnel dans une banque qu'on appelle Banque de développement du Mali. mais nekk seen gal jóge Sénégal. Uh-huh. amuñu xar. Hmm? dañu dem jënd seen genn wàllu xar le lendemain 19h ñu avons suñu un bu de télé. <laughs> mais sénégalais mënul envisager lool parce qu'il y a une pression sociale. une conformité sociale qui comme finalement bis bu nekk ñi ngi je pense que les médias mm-hmm. peuvent quand même contribuer à déconstruire un peu cette politique de ma TV cette politique de man menace à ma bop. lu bari luñ je pense que sunu ligay. politique bi daf ko absorbé. dëgg la euh, am na yu bari yoo xam ne quand même ah. war nañ ci mën a dugg waxtaan ci ak askan bi ñu joxe ci seen xalaat. ñëpp hmm. jariñoo ko. très bien mais am na ñu bëgg yoon yu gàtt yi rek xam nga yoon lu yomb moom dafa yomb ñëpp. Hmm. li waa ji di wax yàq <laughs> na ñu yàq it ci euh, dunu réseaux sociaux yi nag. Hmm. c'est des journalistes. bien formés. mais qui euh, far fa leen neex. ngir am jalo leen neex. ndax yi ñuy wax ci dëkk bi leer na bu lis yi génnoon di nga yoo xam ne nga tax sa génn. yaakaar naa loolu yoo xam ni kenn gënu leen rilaamin ci réew di nga gis seen tur. waaw waaw <laughs> am na ku ma mës a junj loolu am atam. Mhm. nee ma jatu bu ñu demee ba ci kanam. Mhm. am na benn zone bugguma tudd zone bi. nit ñi bu ñu amee seetlu dinañu wax ne. kon mhm. euh, naka la mun a amee concentration autant de propriétaires peut-être issus du milieu des médias. mais xam nga lan mooy problème bi. faraluma journaliste yow xam nga bu baax sama jikko ci loolu. mais li la doon wax rek en réalité aussi Assane. je pense que c'est quand même très profond parce que sénégalais journalistes en fait on a les journalistes. Mhm. de la société sénégalaise. on a les policiers. de la société sénégalaise. Mhm. on a les médecins de la société sénégalaise. dans le corps médical parfois tu trouves des courtiers qui détournent les malades vers d'autres cliniques. qui sont gérés par des chefs de service ou par exemple euh, c'est la même chose. Mhm. Euh, je pense que société l'olmota même defar société dafa bax def ay garde fou aussi gis nga li am fi yëpp dans la presse la police euh, la médecine euh, l'administration bo amul won ay garde fou. Canada France États-Unis mu am fa mhm. mais dañu tek ay garde fou. parce que doomu adama lu yomb le bëgg par essence mhm. dañu tek ay garde fou. yu tax kenn du ko ñemee et c'est pour ça que je pense la réforme

Mhm. Euh, métier mais les modèles aussi ñi ci jot mhm. moi j'ai l'impression y a une certaine peur xam nga intellectuel waru ragal. un intellectuel dafa am le courage de ses mm-hmm. idées. Mm-hmm. bo déggee ben way taxaw ne chroniqueur la wax ci euh, télé ba lo xamni mm-hmm. non seulement du xam-xam mais day jaxase xel yi. mais ci lendemain ba waro bayyi wer ci ci bisam. nga bind euh, contribution weddi ko avec des arguments. wala nga ñew ci télé wan ko ni yow mi ab nilar nga da ngay yak xelu askan wi. mais légui les universitaires les intellectuels dafa melni dañu daw. waaw je pense que en fait moi, il ma la wax aussi xam nga euh, intellectuel mhm. universitaire journaliste dañ koy solliciter aussi pour mu ñëw wax li am Assane ci métier bi man li gis mhm. c'est pas forcément parce que dañu baña a bo boo universitaire nekk euh, intellectuel wala nga euh, colonel à la retraite bu xarañ ci affaire sécurité Assane do nangu aussi ñu lay bolé mhm. ak benn Samba Boy bu jàngul xamul ñu boole plateaux. plateau. mu di la porter la contradiction D'accord. accord xam naa même demul polémique débat contribution yi ngay def ak tontu yi dina tax ni la daw loolu la nature a horreur du vide ces gens yi ngay dénoncé ñuy chroniqueur du soir parce que dañu qu'il y rek le vide la a le vide amul ku a tontu vide waaw ça ah. c'est vrai et le vide là quand même aussi il li mal à voir. ceux qui sont entrés plus ou moins par infraction contrôler les plateaux waxuma ñëpp nag mhm. mais ñenn ñi mhm mais ils ont fait en sorte comme les ma la wax profiler l'offre programmatique dañoo profiler seeni espace mhm. par rapport ak ñoom li ñu mën mooy waxu kasaw vous bu féetewul fenn boo xam ne beaucoup de clubs ba pare dans le meilleur des cas da ngay reetaan amul dara finalement loo xam ne mën nga ci dóor sa doom wala mën nga peut-être ñun li ñu war a def Assane mooy ñi mel ni les groupes yi mel na mhm. effectivement je pense que moi les ma la on a donné trop, trop, trop, trop d'espace mhm. à la politique. À la politique, Mais l'IFA fait des recherches. Oui, L'ISRA a fait des recherches. Mhm. je pense qu'il faut de plus en plus, dans nos plateaux, qu'on ouvre des espaces, mhm. des créneaux, yo, Manam, ay borom xam-xam ñoo fay ñëw toog di fa wax mhm. bu ko défé je pense que parce que sénégalais je pense que bëgg nañ information bu baax bëgg nañu seen xam-xam gëna jëm kanam mhm. bëgg nañu gëna maîtriser seen environnement si fan yu nekk ñew rek na sénégalais yi fecc ak way ak werante lañu bëgg mhm. pour man je pense que c'est un peu trop facile ñun tamit nañu def effort pour euh, pour améliorer suñu offre programmatique pour intégrer si yo xamné euh, day tax askan bi diko ko ku nek bëgg nga déglu pourtant mu ngi ci cahier de charge mais forage la li xiden waaw mooy jox télé rek wala nga jox ko radio yow xamatoo sax ci la bu ne voilà ah, loolu tamit am na Diatou Cissé loo xalaat ci nomination Pape Alé comme directeur général RTS xam nga Pape Alé sama rakala la mhm. ñu seq jàmm seq euh, courtoisie vraiment mo ma bàyyi ko xel mu bayima xel aussi mhm d'accord ma toujours aussi avec Pape Alé Oui, man Pape mhm. affection man je l'assume clairement uh-huh. léegi nag man gis quand même mhm. di bëgg mais quoi qu'on dise mhm. Pape quand même est du secteur ah mais RTS que ko administrateur civil RTS jox est ko ingénieur télécom te le ou non man la.

procès d'intention. Mm-hmm. nañ ko mm-hmm. mu ñu nan lay mais allah mm-hmm. réorientation de la RTS. pour que mu un appareil idéologique propre à la propagande de l'État loolu mom ala kulli al je pense que il faut ñu def ko te ñom joomaay. mais éviter de demander à la RTS lo xamni télé télé privé ko mën parce que boo lo les médias d'État aussi lo ci mën di wax jatu euh, aspect état bi da ci da ci dess il faut mu dess Médias d'État. d' euh, état. xam nga médias d'état bobu état la ñuy dindi. pour man. Ah. repositionner ko comme média de service public. ok média de service public. Mhm. état bi ci la bokk. Euh, la diversité ethnique c'est la bok. Mhm. la diversité religieuse si la boc, la culture si la boc, les religions c'est lañ bok. Mhm. donc à kuli al gouvernement bu fi munti devoir de redevabilité et d'imputabilité dans la mise en œuvre des politiques publiques c'est ce dañ ko xam mhm. bu un forage effectivement RTS dafa wara woné né ne def nañu forage Ndingler li lay jariñ mhm. mais en même temps ñi d'accordul le forage ba wala coût forage bi sen baat dañ ko wara dégg RTS lolu moy dégg parti yépp mhm. donc il faut ñu repositionner RTS mu nekk benn média de service public bo xamné aussi les les opinions divergentes mhm. parce que li am ba légui RTS fi nguur gi wax lay wax fi nguur gi xool lay xool loolu moom àla kuli al il faut ñu ñu ñu génn ci mhm. la diversité des opinions y compris les opinions politiques dafa jot parce que tamit bu du loolu

si li ma xam si man je sais qu'il est capable. Mhm. de remettre les clés de la maison dem defi euh, la def donc nagn ko baye mu tok mais ñom buñ ko defulé sax wéddi sen bopp lay don ndax image yu euh, Ousmane Sonko monsieur le premier ministre bi muy simpi micro RTS ngi fi lam leen sikke mais s'il remet ça ça veut dire que mo leen yées. néna naa leen si ben émission. Mhm. te lol du RTS gis nga fi bo amé pouvoir. Mhm. y a l'appareil du pouvoir même la superstructure du pouvoir. oui oui heureusement cortège yi nee na nañ parce que man euh, a peut-être 10 jours tok na gaar ba lu mat 15 minutes ma gis bouquet bu ken nekul ñu def ci kanam PR. Mhm. je disais joma a ngi bëgg dugg ci cortège yu metti yi mhm. donc je pense que il y a cette structure là dont il faut se méfier moi je salue l'initiative. la décision finalement d'alléger le cortège du président etc. pour man. Mhm. lolu yep si rupture la bok mais dañ lay duggal mais imagine toi euh, Assane même du temps de la colonisation. Mhm. suñu maam yi ñu doon woowee indigène dañ daan mhm. romb buntu palé. Ah ils ont mis un dispositif de sécurité bo xamné mhm. yow mëno joggé par exemple IPRES. romb buntu palé jëm hôpital da principal. dañ lay wàññeekuloo je pense que rupture yooyu yëpp c'est des. mais nag contexte bi la won jàpp mais contexte bi la woon. mais gis nañ fi. Euh, euh, pour ne pas le nommer Guy Marius Sagna dem fa di bëri. waaye Assane on am na loo aussi jàpp. Assane à à Paris Élysée do jaar ci. ci buntu ko xam nga on ne peut pas se prévaloir de ses propres turpitudes mais relevons le contexte euh, quand même non non mais mm-hmm. hyper présidentialisme là cette super structure qui place presque le président en position de Dieu ou de demi-Dieu. Mm-hmm sans lui enlever toute son autorité. je pense que a affaire la yoo xam ne venir à la RTS, c'est la même chose. Mhm. Moi, j'ai dit qu'il faut nous éviter l'effet d'accoutumance. Mhm. Parce que pour le moment, tel pour nous faire les remarques, mhm. j'espère que vous passez à mes les réorientations attendues Mais je pense que dans le pouvoir Sénégal, il y a une super structure, il y a tout un mécanisme, tout un dispositif. Finalement, nous avons organisé les conditions pour faire de nos présidents aussi, euh, voilà, des présidents hyper forts. ok encore une fois contexte bi ci wàllu RTS sax ñoom bu ñu soppiwul sax àddina mo toll fo xamni <laughs> di xaj nit télévision ay ay dalay def ay ree sax mm-hmm. waaw ndax télé ci poos amna na privé euh, am waaw nit ñi nag mën nga tok sa kër sax defal sa bop sa journal bop finalement il faut être raisonnable quoi waaw waaw je pense que la RTS va y arriver parce que quand même li ma fa mm. xam mm. ils ont d'excellents professionnels tant sur le plan technique journalistique même administration ils ont quand même une administration avec des euh, des procédures parce que xam nga RTS aussi kër gu màgget la mm-hmm. c'est une vieille boîte aussi

góor ñi bañ indi ki leen yàlla booleel muy seen soxna ñu yaakaar ne kooku dañu war a am. Mm. rapport d'autorité ak moom. day day day biaisé perception yi. dëgg la ji ñii di xas jigéen ñi amul luñ ñu waxul. parce que simplement dañ na gouvernement bi euh, jigéen ñi waroon nañ cee gën a mën a feeñ. ministère de la femme entité femme boobu dafa amoon lu muy signifier waruñu ko ci woon génne. Mm-hmm. ñu yaakaar ne. nos droit la. Mhm. nos liberté d'expression la ci dëkk bi nous bok dañu am droit analyser gouvernement mhm. en tant que dualité ah, je pense que jarul Tchou, jarul Khas, mhm. jarul Saga, parce que ñi ak ñi kuñ fi sa sœur wala sa badjan, wala sa tante ya sa téléphone oui jattu sama jattu sama grande sœur là. <laughs> kooku mom, mom, am naa si moom ah. loolu la wax par exemple donc affaire bi du mbirum góor ñee chefu ou ñi wala jigéen ñi xam jigen ni, xamul mbirum mm. société la mm-hmm. dañu ne il faut aller dans le sens du vent dama bëgg xam Assane ah. jigéen ñi nek fa ñuy nase di nocci ak ni i càmmiñ mhm. ñuy Définir nos des politiques publiques ensemble lan la mona a vraiment lu leen yàqal parce que ñi ñu bëgg a infantiliser naan compétence asan mm, mm-hmm. compétence amul sër amul tubéy dëgg la compétence mm-hmm. amul sexe am na ñu mm. am ñu mais dès l'instant bu ñu waxee ñi ñu ne waaw est-ce que ñoom mën nañu am na ñuy wax sax naan bi ñuy dóor jigéenu Pastef fi fu ñu nekkoon mm-hmm. justement dañoo amoon lu ñu metti mais dañoo gore parce que bu ñu dóoroon jigéenu ay Pastef ñu génn def suñu communiqué ne waruñu leen dóor mm-hmm. ñu ne lan ngeen bëgg ñu ngi xeex au même titre que les hommes lu tax yéen de gis nga li taxoon ñu leen di door ñun mm-hmm. waxaluñ suñu bopp de dañu ne Pastef bu ñu xoolee ba xool seeni rang Sénégal fii nii ak diaspora war nañu am ay jigéen yu ñu gën a dugal ci gouvernement bi kenn waxalu fi boppam. Mhm. parce que nag bëy la mu doon lekk ba am sikki mën na cee continuer. dëgg la groupe bi ma bokk man ñuy wax loolu ku ci nekk. boo dul cadre fa nga nekk am nga ci loo mën a wéeru mhm. donc waxaluñ suñu bopp on parle du point de vue du principe on parle particulièrement pour les sœurs de Pastef mhm. même si nous sommes fiers pour Yacine pour Maymouna Dieye pour euh, Khady sama turandoo ñun ñëpp ñi ngi leen di ñaanal mais dama lu ñëpp bokk. Mm-hmm. dañ koy bokk. dëgg am nañu droit jigéenu Sénégal ne ci dëkk bi lañu bokk. Mm-hmm. gouvernement bi gouvernement sénégalais la waroon nañ cee gën a gis jigéen ñi. Mm-hmm. am nañu droit ne ministère de la femme ñun bu ñu sañoon Assane. ministère de la femme dootul amati. ministère de la famille dootul amati. ministère petite enfance dootul amati. parce que boo xoolee c'est des problématiques transversales. dafa traverser société bi yëpp. foo ba ci sécurité santé ak yëpp dafa am entité yooyu. Mm-hmm. mais yow bo fekkee mur ce mur bu dëngee fi mu dëngee nga koy joyanté uh-huh. loolu mo indi ñu indi composante femme famille te li taxone ñun ñu ñu bëgg japp ci famille moy né le fait que ñu boo ministère des solidarités le concept est diffus. Mm-hmm. solidarité lu ne ci xew alors que bi ñu waxee femme. Mhm. bu ñu voté budget bi dañuy xam spécifiquement lan la ñu jagleel femmes yi ci ban fànn ñu mun a def monitoring loolu di ko doxalee si terrain bi. Mhm. loolu donc moo tax ñun ñuy wax léegi nag. ñu ngi ñuy wax féministe tam nañ ñu dëmm wax nañ ñu lu nekk. waaye xam nga ñun tamit loolu yëngaluñu. parce que ni gars yi di def. Mm-hmm. ak fu ñu mën a dugg ak fan mm-hmm. lañ ñu mën a tuumaal ba dëkk bii liñ ci xalaat duñ ci wax. Mm-hmm. man loolu gisa gisaguma ko parce que nag Assane la lutte des femmes dafa am. ñun jigéen ñi xeex nañu fii pour suñu jëkkër bu feebaree ñu mun ko faj. parce que bu jëkk ba. da ngay am prise en assurance boo xam ne mun na am sax évacuation sanitaire. sa jëkkër tëdd si kër gi. Ah. ñu war ko évacuer euh, kii ay sëram di indi ay lamam yi ngeen jaay seen terrain nga jaay sa oto ngeen jaay seen bagage pour évacuer ko. dañ ne du si dalati. bu njëkk ba su su su jigéen ga su jë góor gaañoo. Mhm. dañuy fay pension jigéen bi. mais maara day taali boo yoree ñaari salaire sa jabar di indi di indi ngeen di taqale yor xale yi. Mhm. yàlla weddi sa jabar génn àdduna daawula fay pension ñun mhm. loolu dañ ko xeex. temps yi koy xeex. kenn waxuñu féministe lañu. Uh-huh. kenn waxuñu dëmm lañu. Mm-hmm. kenn waxuñu duñu da da da ay ay on est à la solde des occidentaux. Uh-huh. ci dëkk bi ci lañu bokk. bu ñu gisee loo xam ne dañu yaakaar ne ñun ci sunuy akki mm. ak jéego yi ñu def fi mu toll daf ko nar a wàññi. dama ne ñun ñoo dul nangu dañu passé foo xam ne dañu naan. dem leen joos seen i cin ak seen i casserole. loolu moom weesu nañ ko. <laughs> très mu mel ni kon combat bi jeexagul day jatu euh, demoon nañ fi ba parité ak nangam ba ngeen am ci ay jéego waaye dafa mel ni gars yi daal ba tey ñoom cosaan gi da ko bëgg a yóbbul jamono. wax naa ne xale yi euh, suñu groupe ma ne leen peut-être ñu ñoo seetluwul. Hmm. parce que effectivement boo xoolee le discours en général. Hmm. Pastef.

bu leen fàtte jigéen ñi ñu ngi ci ginnaaw te na ngeen ko commencé seeni jigéenu Pastef yi àndoon ak yéen di xeex mhm. parce que ñoom tamit am na lu ñu mën am na lu ñu xam loolu rek moo ñu tax a jóg leneen euh, taxuñu jóg xëy na nañ dabu xëy na des na yeneen poste ah yaakaar nañ daal na il faut ñu yaatal géew bi uh-huh. waaw li woykat bi naan nañ yaatal géew bi Assane ak ki uh-huh. il faut ñu yaatal géew bi te yaatal géew bi mhm. allah kulli aal jigéen ñi dañ cee war a bokk parce mhm. que bu ñu naree doxal dëkk bi fi jamono bi toll Arabie Saoudite sax jigéen ñi am na nañu ay droit léegi mun nga liggéey sans validation mun nga jàng mun nga dawal oto te kenn mm. du si wax léegi nag aller contre le sens du vent moom mm. Mm, day tax sa dox yéex c'est peine mm-hmm. moo ne sax gars yi di génne dënd ñoom ñëpp jigéen ñi leen di yeetal ah, su ma ko ah, sañoon wax ne fii ku fi jaaxle waaw président premier ministre rek ah. man de xaritu góor ñi laa bari naa sama ay xaritu góor yoo xam ne léeg dañ naan jatu pourtant sama jabar waxoon na ma ko maa ko dégluwul waaw jigéen ñi daal man pour man compétence daal moo solo

takk ñu sër bëgguñu sol pantalon on est bien ak suñu sër ak suñu grand mbubb ak suñu jaagar jaagar mais nag fi ñuy nasaka nocci mm-hmm. nan ñu bàyyi comme ñoo yore famille yi ñoo yore askan bi dañuy jur di boot di nàmpal yore dépense mu ndaw di ko korkoral ba weer bi dee te kër gi ñëpp dinañ lekk suur mm. ñu yaakaar ne am nañu ay aptitude yoo xam ne war mm. nañ ñoo mën a boole fi ñuy nasaka nocci loolu rek la mais du leneen bu loolu weesee on est très content d'être des femmes <laughs> nga macha catu mais gis nga ci métier mi nuy euh, yëngu daal uh-huh. yéen ay modèle ngeen ci te man dama mës a gëm loolu xale gis nga nit da ngay am référence nga may modèle loolu nag moo xaw a tumuranke ci gune yi léegi waaw moo tax it balaañ fee toj fenn dinañ wax lu set man moom mu ngoog non fekk na boobu la ngeen xam-xamuñu ko <laughs> ma ne ku la ku la jëkk reer moo lay wan luy reer yàlla yàlla yàggal taxawaay bi merci Diatou Cissé Badiane la ñu àndaloon Diatou Cissé Badiane journaliste seen émission yoon week RFM ci technique bi Abdoulaye Diop El Hadj Assane Gueye ci micro bi ba alxamis ak jàmm incha allah.